من كل ما يفضي لذلة القدم وجود ذي القدم والبقاء يعصم كل من الشقاء زبت مقالفته تماصلا وقد كفاني در من تماصلا بمن لؤ القيام بالنفس وجب آمنت إيمانا يقودني العجب الله موجود قديم باقي لو الأراضي الصم الطباقي لو تعالى بالصفات وحده خمسا وستا قد بدت بالوحده لو ست وأولها وفت نفسية ثابتة ومنتفة ها أم بعيدة لدينا سميات سلبية أداد آقا نفية الأنابي كل أذن وقد كفى الأنابي زب كتاب الله عن جنابي كل أذن وقد كفى الأنابي أكرم به ذكرا حكيما قادا لي الذي رجوت فانقادا لله عمي وذكاري بالكتاب أقرأ بلا أذن ولا غتاب ليس له شريك في قال ما ليس له فراق أتلو كتاب الله بامتداح من بدئي لأولي يوجه الأمن لبان أن المصطفى ما يرى مثل له في أبد ولم يرى كتابه كرمني تكريما ففي شكر الله لن أريما تكريم باق بان لي في ذكري وقد حماني بي أم مكري أذكر من منه أتى الكتاب وفي قال ذلك الكتاب باقيت بالصلاة عن جنابي للمصطفى الذي نفى الأنابي فقد ذوايا بقدام الباقي بلا لي بأمر باقي يا إلي صلبات ولي بلا تغرر قد جذبت ذلك فضل ربنا الباقي الولي في رمضان وربيع الأول ملكني المغني وللوهاب قاد المنى ودار لا أهاب أخذ ما أن يباء لا عني بلا إله إلا الله آيات رب جذبت لصدري ولسواي صرفت ذا الغدر إذا طلعت آية فر اللعين لغير النوي ويزاد والمعين ترتيلي القرآن يطرد إلى غير جهاتي ما يقدر الإله يا أبو للقرآن ما لم يهبي لأحد بذرا بغير رابي تفضل الباقي علي بالكتاب مبصرا كليتي بلا عتاب كتابتي للعرش والكرسي ولو إما قلمي القدسي باء بقتل الله كل مرسلين على الجميع صلوات المرسلين هداني الله بأمر باقي وأذت باقيا خطاب الباقي يسر لي ميسر أسيري مقتر لي بلا مزيري يسر لي ميسر أسيري مقتر لي بلا مزيري ولا العين لتوايا مدبرا بما على ذري يدوم دبرا Uh, Cheikh Moustapha Bam doora ci nuyo bek ziar bi seigne Ousmane mi nga xamne ne yalla suñu daje tay jii sabab bi ci mom la jare li mu yaggo taxawul mamam di taxawul way juróom ya ñuy ñaan yalla nako suñu borom fulu yaatal ko ba mu te ñaan fa fekk ñeen fa fekk ñëpp te ñun ñi and liggey bi tam suñu borom may nu ñu koy fekkee at bari te saa bu dikke rek ndol leen li gëna fess ba fu soob suñu borom. di sant tam sëñ maam Cheikh Zikrullah sunu wayjur woowu nga xam ne ginnaaw yàlla liggéey bi lépp sëñ bi ci loxoom la ko teg ban jógee tam ci bunt boobu lan jaare mu may nu nii lañ doon jëflanteel ndax ñun ñoo dëkkee njaareem mu boole ñoom ñoom sëñ Matar kenn mii di ànd ak ñoom liggéey bi te am ci taxawaay nag ndax la leen ci war lépp ñu def ko bi ñëwee beeg si itam ñoom yitte ju sëkk ci Eh, li leen tax a ñëw rek ñu ne ci mel na ne xaw noo naaja sax waaye bi ñu tàmbali daanaka midi jot na te bi ñu dog bi ñu dog deux heures jot na kon day mel ne lu gàtt gàtt dafa fi ñaari waxtu yoo xam ne turu yàlla bi dogut kon ni ngi ñaan nag li ci sëñ bi santaane woon lépp te mooy eh, kuy tudd yàlla jël na fa ñu ne waaye la ko la ko jege sax saytaan dafa jaar yàlla na fi jaare duñ ko gisanteeg moom mukk ci àdduna waye tam li ñu doon def tan ko doon def mu doon ak tawasulu diko ñaanal ñu bax ñoñe yalla liggey bi yëpp egg ci ñom barke sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibrahima Fall euh, di sant tam sëñ Ousmane ndax liggey bi tam wax deug ni nga ni nga dem ak Cheikh Ibrahima ñëpp ñëpp xam nañu ko ndax <laughs> ginnaaw moom yow da nga da ngaa da nga koo tippoo te fësal ko léegi la ma sëñ Fall fek fi di ma di ma kalaame sëñ Fall ci la. sëñ Fall xam bokkoon daara ci xel kawam mm-hmm. waaw ñoo ne fii naan ma nag bu dee dëkkandoo wala mbakar fegu am na it <laughs> lii daal bëgg naa ko mën a ko nag léegi <laughs> da nga def nag dem naa fee muy da dof da dof lu sama kaw kenn du ko <laughs> ca baax waaye lu mën a xew daal ñu ngi sant bu baax tey ñaan liggéey bi ngeen yàgg ko taxaw te luñ ci def bu ren bu déwénee loolu gàccaal ko ci yokkute ci wet yépp nag euh, la ma ci gën a neex nag mooy Eh, murid yi nu ko àndal nga xamne ñom ñoom kàddu la ñuy xaar suñ ndigali jibee rek ñu ñew te buñ koy def nga xamne xol bu seet lañ koy defee ci ndigalu seen kilifa gogu di seigne mam Cheikh moom it ñu ngi koy ñaanal bu baax seigne mom dolli ko taxawu te may ko tawfeex ak ndimbal ba fu mu bëgg liggéey begg fa rek may egg fa xam ni ma doon wax léegi tur yalla mom des ko mënta wéccé ay kàddu ndax nam toll tax eh, seigne bi dane woon li annahu bidayatul wilaya wa tarkuhu nihayatul khawaya gannaaw nak lu bax ci la tambalé eh, wan ko ginnaaw fa lab safaan yam loola bo ci bëgg taftalat ay kaddu day xaw a digg doomu waaye daal ñu xamne kon baati cant ye ngirim yi señ bi doon wara a yëkkati te jaarale ko sama kaddu su ma su maté alhamdullilah rabbil alamin su manké ci man mi koy mi ngi koy jottali loola ñi eh, sant bu baax di ziar suñu suwaata mi ngi yóbbantim ne yokkub ziar eh, di wax ne liggey bi nga xamne ne ko àndaat yi yëpp mi ngi ñaan len yi ak Eh, barke bi ak ñeen koy ñaanal waxtu won nañu gis muy dolleeku saa su ne xamna dal lool mo nekkon kaddu yi ñi ngi jéggulu ñepp tay siaré bu baax tay ñaan tur yalla wi nga xamne mom ngeen def yeen muy bi yëngu di seenub liggéey suñ borom yëkkatee leen ci ni mu yëkkati ni mu ni mu tànnee turam woowu jëm ci kaw bii dem na leen yóbbaale assalamu alaykum taala wa barakatuh wax deug yalla sant nañ yalla bu organisation bi mom wax deug yalla jaar na yoon ñuy sant tam nak bu wëra wëra wëra wëra wër a ñaanal sëñ bi mu yag fi lool tand ko bu wër ban fekk waat koy at yu bëree bëree bëree bëri wa wa ñu wax de yalla jàmbaar lan trop ci organisation parce que japp nañ ci bu baaxa baaxa baaxa baax parce que euh, magal gi nekkul magal go xamni ni pour euh, kenn rek mo fu mëna a nekk pour organiser ñepp ñoo ci japp ci organisation bi euh, defar ba mu baax waaw mom kawe na suñu jort dal sant mom kawé suñu jort mom kawe na suñu jort bu baaxa baaxa baaxa baax ndax euh, manam euh, jamono ju ne murit moom ni muy at mu ne rek yokkute ngay gëna gis sa bop wa to loolu lañuy ñaan itam même ren mom tarkal lepp tubaren tubar fa kala te ñu ngi ñaan yalla itam tar mu gëna tarkal taarkal la comme que daaw macha allah insha allah xana santat rek santat bu baaxa baaxa ba tan gëna laxasay wat laxasay wat ta te itam dara neeku fi manam liggéey rek mo te wanam yoonu suñ touba itam da koo liggéey pour ñaar. Nyak, ak jeriñu te itam ma du ñu di joxe tey ñaq waaw loolu dal mo mo waral yoon wi waaw di santat yalla itam bu baax a baax di di di di soññaat itam suñu mbokki talibé yi lu laxasaayu waat te te te te te jaayu waat te te te xamni itam dara neeku fi lu moy liggéey señ bi rek waaw ndax boo bo liggéey señ bi fi it koy liggéey fenen te manam bayyi li nga mom dem wali wali fenen bu ñu bu bu ñu séddale feet xaar ma rek la ñuy wax fii nag moom moom macha allah daal maanaam wax nag dama see xaw lool lool lool maa ngi tubaab bu baax. man de maa ngi féete ci waañu rek ci waañu ci waañu rek laa féete fi laa nekkal sëñ Ousmane daal ndax eh, xool nit ba mu neex la nga ne yow laa teg ci waañu daal nga jiite ko loolu dara da koo fayut kon nag lépp lu ma fi def rek maa ngi koy mm, mm, xeeb lool lu ma fi def rek ci liggéeyal ko lu sele xolam. maa ngi koy xeeb ndax wax dëgg yàlla yàgg ma fee ñëw de waaye lim jël lépp teg ko sama loxo maa ngi ko ciy sant bu baax a baax di ko ñaanal lépp lu mu def ci lu baayam gi at mu jot bu ñëwee rek na ci def lu gën a kawe njortam ndax nit ku baax la nit ku am yëg ko am yitte ci nit ku ma bëgg nag ku ma taxaw maa ngi koy ñaanal di ñaanal soxnaam yi ci kër gi yàqun ci dara maa ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla taxaw yàggal ngëm-ngëm bi yàggal man gee kàttan gi ci dërëjëy Seydina Mohamed ndax defal ma rek ak jitt dara da doyut ki ne yow la tek ci wañ bi koku mëno ko fay ndax lam gis ci man ba tek ma ci wañ bi ma ngi ñaan sama borom yalla bu ci dara dañ waye momit ma ngi koy ñaanal mom seigne Ousmane ak soxnaam ak seigne Omar ak ñep seigne jili ma ngi leen di ñaanal bu neen sut seen bay ba aw fan te ëpp leen ëpp ko barké yalla lepp luñ sémb daal yàlla na sama borom égalé ci barké seigne Touba ndax yalla mën nako sañ nako te yalla nako yalla def ndax ku am yéena ci magal gi la ndax mom lay défé waaye maa ngi ko koy ñaanal yàlla na ko sama borom gën a yàggal dëkkal ko ba lépp lu mu bëgg rek suñu borom defal ko ko mu man koo def ci barke Seydina Mohamed barke Sëñ Fallou. liggéey bi di kontaan bu baax ci waa daara bi ñu fekk si ak suñu yaay yi ñu fekk si ak ñu ñëw ñëpp ñu ànd ak ñoom liggéey bi ay jàmbaar lan wax dëgg yàlla kafre liggéey liggéey bi mu taxaw ko dem ba ci suba ba tey ñoo ngi fi waaye wax dëgg yàlla dara dara dara dara lu fi lu fi tardé amut lépp doy na lépp teg nañ ko suñu loxo defar nañ ba mu baax. wax dëgg yàlla ñoo ngi ñaan nag yàlla nañ koy mën di def rek at mu jot yàlla nañ koy gën ko mën di def barke Cheikh Khadim waa kay jërëjëf ya rahman ya rahim ya barru ya karim ya azim اغفر ذنوبنا تقبل منا وميمانا وتجاوز همام وأنزلا يا ربنا خير نهم ما كان ما نخاف من زر نخم وهب لنا الأداب والمزايا وكفنا فات ورزايا وهب لنا الإرث على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا يا معافي يا من له أمر ورايا ثافي يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر ورايا ثافي أنزل زفاك مكان دايم ولا بلا وانزل النفع مكان الضر وانزل الخير مكان الزر وانزل الماء مكان الجهل وانزل الجود مكان البخل وانزل الخنام مكان الفقر وانزل سكر مكان الكفر وسي جميع المسلمين عاجلا ثم خيم خوفا حسنا عاجلا ونجيم وعافهم والتفهم ولا تواخذهم بكسر سنبهم بكسر سنبهم فإنهم وإن عصوك يا أهل لغفلة لم يسكوا بك وإنهم أبدانهم لا تقدروا على أعبلاء كالدعف يزر قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك أو ناس مخدام لكنما تلزز الجواري أبداهم لأخباء الخبائن لكنما تلزز الجواري أبداهم لأغباء الخبائي فلا تؤاخذهم بما لا ينقصهم ولو ما بالذي لا ينفهم فلا تؤاخذهم بما لا ينقصهم ولو ما بالذي لا ينفهم يلا يلا يلا يا مغلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب واغرنا كل مسلم ونجنا من سر كل مجرم واجعل جميع المسلمين تران لنا خلاف نكفى دران واجعل جميع المؤمنين في العدام والمؤمنات ثم فيهم خدام واجعل جميع مسلمين في ارتقام والمسلمات بازديادهم تقام وجل جميع العلماء عاملين وجل جميع العالمين مخلصين وجل جميع المخلصين الزاهدين وجل جميع سعيدين نازين وجل جميع ناصر الصادقين وجل جميع صادقين فائزين واخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم من أعزا وديرا وآخرنا بربك واغرنا بحبهم لوجهك واغرم بنا فنصرك واجعل جميع اخوتي ونسبي في رحمة يوم ازداد نسبي واجعل لنا عنان وعنا زان ساقطة تبدلا فنوزا وهب مكارم الأخلاق ماتا التعبر بلا سخاخ وجل صغير نعم يوخر الكبير وجل كبير نعم يعين للصغير وجل قلوبنا نعم، على توادل بلا تنازل ولا تاسدي ولا ولا تباخد ولا تنافر أتى نزير مسلمين خازين والمؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في دارين خير عافية وامي وكفنا عن ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا أصل الختام عند الممات وغدا يوم القيام وأولنا يا ربنا أصل الختام عند الممات وغدا يوم القيام يا Yeah! يا هي من سبل أمرادا وواب المرغوب على أغرادا محمد طبيب الأمام الممري الأمراض والأسقام وصل عليه ثم سلمان وآل سعى الكرمام ما أبلغ المسؤول بالدائم وهو في المريض بالسسوائم وللناس معيدا سادا ولا وزفان وفيدا يا من يروم داف كل دائم فلا تفارق مطلب الصفاء ودم عليه في المساء والصباح مخلصا ترنا صفان وفلان باسم ربنا وجاء المصطفى صلاة الليل ربنا كما الصفا باسم ربنا وجاء المصطفى صلاة الليل ربنا كما الصفا سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أخي ثاغي برافال رجال ثاغي برافال هجس المجال إبرافال إنك الكمال وصلت حقا للجلال إبراهيم فعل لم يصل يعطي رقابة في الأرسل حتى سبقت بالكمال وما المجز فلا يراه في المجز ذلك وحد قد مجز ثرواك ليس في البصر قدمت أحمد الخديم باسم ربك الخديم شيخك نور من قديم من سك في خد خزير يدخل في النار جهيم صمد في الأمين سلاسل ما سخون ناس من سك سرر من سك في إبراهيم فان من سك في إبراهيم فان من سك في إبراهيم فعل وفي طريقة كمال إن لم يتب لذي الجلال يرى عذابا قد نكر شيخ ابن فعل يا تغنو خم تربية شيخ ابن فعل يا تغنو خم تربية نعم بينكم أجيب سمي حديا شيخ ابن فعل يا تغنو تبيع الجنات baatinu tabbi aljinaatu Seex Ibra Faal sant la war naa badaan te Seex Bamba ak Muhammada gërëm na la ba la sañ-sañ ngay far di folli la neex jar nga kañ yaa gis la pour làq ji lawul mahfuus ak lawhul maknuuni yow toloo noos yow mi fanaani mulki baati malakoo mi yaajo yaay borom mboot yaay ñag bi Seex Bamba ñag murid yi waaju la ñag yi yaa moom ruy yaa ma rijaalu laa yaay fanaan yi ca pey yàlla yay la sëriñ bi tànn def la jëwriñ àdduna ak ku lay yow la nu jébal sunuy mbir ca bislaam xaral nu sunuy Bamba am yàlla moo gën a mel ni moom am yàlla moo gën a am leneen lu dul moom moo tax nga am yàlla ni nooy koom am nga maqaama yaay borom tiraanga kenn waru laa bañ a moo am nga yàlla yoneen mbir sëriñ bi am gaa yu baax yi ñëw ci dun bi àjjana yow kan dina la ak sa waa kër yawmal xiyaamati sëriñ bi ay mbër amoo moroom waaju la weddi an ko yawmal xiyaamati dawal nga tub ko xalilullaahi mooy xaritub yàlla te Seydina doom jaadi Ismaayila ànd ak la mbir yëpp leer nu xam la. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen nuyu di nuyu ñëpp ñi may seetaan. di nuyu ñi nekk ci màggal gi yëpp. waa màggal gi moom ñu ngi ko organiser ak Pastef ndax day màggal gi day taxawaay bu yàgg boo xam ne jamonoy sëñ Mahmoud la ba léegi mu nekk loo xamante ne yéene lañ ciy demee ak pas-pas organiser wu ci ànd ak suñu dëkkandoo yëpp ñëpp jàpp ñu ñu laxasaayu ci liggéey bi taalibe yeeg dëkkandoo yeeg ñëpp ñëpp ñoo ñuy wuyu si jàpp ci. déedéet lépp moom dañ koy sante sëñ bi rek ndax lépp lu ñu yomb lay doon ndax que sëñ Mahmoud moom lépp lu fi waaye di def dalay yomb. dara jafewuñ ci lépp lu ñu yomb la. waa bis bi moom niñ ko war a fonke comme ni ko soxna yi rek fonke ndax mën naa ne tàmbalee ko ca kër gu màggat ci soxna yu mag yi ba fii nii ñëpp ñoo am pasteef boobu di soxna maam jaara sill ca kër gu màgg ak soxna mbenn sill ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ñun ñi ñu topp seen ginnaaw vraiment liggéey bi ñoom ñoo rafetal lépp ndax ñoom ñoo jiitu ñu topp seen ginnaaw mu rafet. amuñu ci benn jafe-jafe saa bu ñëwee rek day gën a baax di gën a xéewale. ah kàddu gu mujj gi moom mooy dañuy sant di sant di gërëm ñëpp di sant sunu sëriñ maam sëriñ sil ak taalibe yeeg ñëpp sëñ usmaan su ma limee damay juum maa ngi sant ñëpp di leen ziyaar di leen su loolu weesoo nag maa ngi sant taalibe yi nga xam ne su liggéey bi jubsee ñoom ñëppay ñëw jàpp ci liggéey bi lépp jaar yoon dëkkandoo yi ñëpp wuyu si ñu sant nañ leen gërëm leen jaajëfal ñëpp di ñaan yàlla mu yàgg koo fekk at yu baree bari ci darajay sëñ Mahmoud ñu koy ndax gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lay ñaanal asa keneen loolu la xanaa waaw. sëñ Mahmoud Sill doomi sëñ Maam Sëriñ Sill Maam Sëriñ nag soxna Asta Mbàkke moo nen waajur soxna Asta Mbàkke doomi Maamor Anta Sali la doonoon léegi waajuram bu góor sëñ moom sëñ Mahmoud Maam Sëriñ Sill naa ko Maam Sëriñ Sill sëñ ma Masamba Asta mooy waajuram sëñ ma sëñ ma Samba Asta sëñ euh, euh, kii mm, sëñ bi de de waay mm, sëñ ma Ndoumbe Masil waaw kii de mbokkam la mooy wajuram sëñ ma Masil daa amoon ñaari Masamba Masamba xëri mooy sëñ Mirina Masamba Asta mooy maami sëñ Mahmoud noonu demee euh, lam fa fa ci wetu ndeyam nag ma ma sa ma sa ma sëñ ma ma Sali dafa am ma mu ma Asta ma bi ma ma ma ma mu jox ñu jox ma ma ma Marsil ma am fa ma ma ma wax Masamba ma ma ma la ma Masamba Asta ma ma Sali ma ma ma ma ma ko ma Asta ma ma ba ma ma ma dem ma mu jël ko jox ma ma bi di Masamba Asta ma ma ma Masamba Asta ma ma ma Mama ma ma ak maam Mor Asta ba Ndaw ak maam Sëriñ Sil ñoom ñett ñooñu maanaam ñoom ñett ñooñu bokk ndey baay am na ñeneen ñu bokkal baay waaye ñoom ñett ñooñu bokk ndey ak baay waaw noonu daal léegi nag ma maam Sëriñ Sil moom mi nga xam ne moo waral bis bi moom ku baax ki moo ko waxoon moo joxoon digal mu ñëw fii lii may wax nag sëñ Mahmoud ma ngi ci dëgg moo wax ma dégg te war war na waa jombalee wax loo xam ne ni naka sul noonu la waaw la ginnaaw bi maam si am maam si ci boobu am na téere bu ci bindoon suñu boo kebe mii sara defaat naa defaat téere bi eh, ngir eh, ngir nit ñi gën ko mën a mën a mën a mën a mën a saytu eh, léegi la ma wax mooy la ma sëñ Mahmoud wax ko nee na sëriñ dafa am bis ci njaarim sëñ Tuubaa ne ko njaarim de këru liggéeyukaay la Tuubaa mooy kër noppalukaay gi kaay dem Tuubaa ni mu fa moo ñëw daal bind suuf ñaari waaw benn waaw gi ne wax fan lu xayra laa lakkum tu defoon na dégg nga maanaam moom moom kii moom euh, sëñ Mahmoud mu ne wax fan lu xayra la laa lakkum tu moom ni mu ko déggee moom sëñ Mahmoud nee wax fan loo juróom-ñaari araf la mu ne juróom-ñaari cërëm yi alxayra juróomi araf kon sa juróom-ñaari cër yi boo dee na ko làggal si juróom julli yi moom noonu la ko déggee woon daa def wala taqrabul fawaahisha maa zahara minhaa wa maa mooy beneen waaw gi mais bi ko waxee loolu nag maam sëriñ ne ko ne teg mu ne ko lan sëriñ lan mu ko dama bëggoon waaw yi maa xaraf yi ngi bind ci suuf nga bind ko ci këyit jox ma ko ngir yàlla muy ndax yàlla muy sama wéttal sëñ Mahmoud nee na ku waa ku baax ne ko hmm, Mahmoud fal asafla sëriñ too fal doo déglu ma xanaa sëriñ xanaa xamoo ne xaraf yooyu nga wax bu ma ko bindoon ci këyit jox ko dana ko faral toog déglu ma mu toog ba jëmi jamono mu woo maam maam morfaat mu ne ko kaay dem ci morfaat Touré sa mbokk ma bokk fa mbokk la fa dara dégg léegi mu loolu moo waral suñu nekk fii suñu nekk fii li ko waral dëgg-dëgg mooy loolu ndigal loolu suñ tubaa joxoon maam daana wax na moom sëriñ maam sëriñ sëriñ Mahmoud la suñ tubaa na sama baay de dal na ma ndax lépp lu mu tubaa bokkal na ma ko fii loolu loolu daal laa xam ci mbir moomu léegi nag nun moom dadaa dadaa da dadaa dadaa fàttaliku waajuram ci ñaan bis bi àllarba kare bi yàlla defee mu làqu maam sëriñ ne ma dama bëgg ñu wéyal loola waaye dañuy dem ci sëñ saaliw laaj ko ci laaj ko ci ndigal bi ñu demee sëñ sëñ sëñ laaj sëñ laaj ni ban bis lañ koy daa la daa ñaan la waajuram ñu wax ko mën ne ndax xam ngeen lu mu ci jublu sëñ bi wax ko ko mu ko da ngeen bàyyi bis booba ndax loolu day leen doy lu saraxal te sérieux sax sérieux sax bàyyi na ko lii lay wax noonu sérieux sax bàyyi nañ ko daana na ngeen sax tànn beneen bis beneen bis bu ngeen tànn budul bi ànd naa ci yéen lii mooy cosaan bis bi sëñ bi nag moo ci baaxa moo koy moo koy moo koy def diggante màggal ak gàmmu gi bu nee màggal ñi gan màggal gi demaguñ gàmmu gi egseegul mu xam ne diggante boobu balaa nit ñee sori ñu ngi def ko ci diggante bi loolu moo waral bis su ko defee nag muy tànn ñaar li gaaw yi ngir ñu dem dëkk fu sori lu mel ndakaaru day maa dal dem bu subaa ñu mën a dallu la ah yaa yaakaar leer na de <laughs> waaw loolu loolu la waaw loolu daal moom hmm, moom daal la jublu taalib yi de man man man man damay wax léeg li ma waxoon fii laay wax dama leen man ah, dama ko jàpp wutoon ngóojur dama ko jàppoon ah, ah, waaye nag liñ ko daa jiñ lépp def na lii def na kii bi xam nañu dara def na lii def na def na loolu ak jagle la ak jam ak jagleem man nga ay dayu at te do ci am ndax lolu yalla koy yalla yalla ko jagleel jam waye man lima man lima xam ci mom ci ñor mu deug deug moy ak taalibeem ak taalibeem taalibe moom foo ko takk wax naa la fi neneen bam mu demee jamono dem ji mu demee màkk bagage ba bagage bi nopi mo bëgg ñew xol na bagage bi at nu ko nee mu daal ne xaaral ma cheikh rafal daana ko seera faal senegal lu ñu nga fa ñu nga ko fa ji waaye sama bagage bi laay xamee nee ab naar bu weex tàll ak ci kaw ñëw ne ko yow mu bagage bi jëm da ngaa tan lii ne may may bëgg wax mu ne ana sa badge mu jox ko badge mu xool adresse bi daan Sénégal daana cas bagage bi ne ma ko ñaata laa xay mu ko loolu boolewuñu ak mu joo topp ci ba fa ne mu bagage delloo ko baritam dugg ci mbooloo mi loolu taalibu man loolu lay xañti ci moom waxal naa tamit ne toon ah lool te loolu duñ ñu ñëpp nee ci dina ci màggal Tuuba ñu ñëpp ji màggal ba yor yor mu daal ne alaay kaay yóbbu ma ma ma waaji ndax yëg naa ne war naa dox aajo te fi ma toll nii araano ci man may dox sa aajo suuf Tuuba alaay indi ko ba fii mu waajaa delluwaat man loolu laa xam ci moom ci taalibe li ñuy wax lépp def na lii def na laa def laa man loolu ak jagle la nit ki yàlla ak kam ko jagleel waaye man li ma ñor dëgg-dëgg ci ma ci may gës mooy taalibe gi wax naa ne képp kum jur ku ne tolluwoo ko ci taalibe lu dee toll dee deewee loolu man maa ko wax ci sama sama sama baat ci kaw loolu daa xam naa ko ci moom sëñ Moustapha Ndiaye ñëw na fii daal di daal di toog ci suuf mu wax wax mu gàntal mu ba mu woo ma ñu mun ko ci kaw ma daal naa naa def pexe pexe pexe taalib daal di sëñ maa ngi lay ñaan nga jëm sëñ Tuubaa nga jóg toog ci kaw mu soo jot toog sëñ bi wax pexe yi ko woon waaw waaw pexe yi ko woon waa maanaam ngir woon la nag moom fi mu ne woon maanaam taalibi gi daal lu ko ñoroon la taalibi gi man daal wax dëgg yàlla moom foofu moom moom euh, man daal foofu laa foofu laa koy xoole yee moom ay jagle la waaw yële ay jagle la yi may wax bëgg a xam ndax def na lay def na laa def naa loolu moom daanaka day waaw waaw te loola tamit du du du du du du lu ko du lu ko jomb ndax yàlla seet ne maa ngi dégg ci làmmiñam moom suñu wax mu ne maanaam woo jiw mu jigéen suñu tubaa ko saytu jël can woo ma woo woo maam maam maam maam Mor Faty noonu la ko waxee mu ñëw mu yëkkati jox ko can gi nee na maam xam nga maam ak maam Sëriñ ay doomi nday lañ ndax kenn ku ne sa sa sa wóojur maam Mor moo la moo la jur maam Mor ah, maam Mor ah, gaawan ak sa yaafe ndey ak baay maanaam si yaayam kon jarbaatu Sëriñ Tuubaa la léegi nag ba mu génnee maam Mor Fati junj ci maam Sëriñ junj ko mel ne maam sëriñ dafa am feneen fu bëgg fu bëgg fu bëggam jëm man maa xalaat loola ah mu wax ak moom la mu wax ak moom maam Mor Faat dellusiwaat ci ku tedd ki nee na ku tedd na ko mm, Mor Faat la nga def ak la na ma ko sëñ wax sëñ Mahmoud lettali ma Mor Faat yi na nga def ak la ma la yónnoon nee na ko mu ne ma ma ma ma Mbàkke damaa defe ne sëñ Mahmoud nee na sëñ Tuubaa ne ko taxawal dama bëgg ngeen jël seen defe gi bàyyi seen ginnaaw te jël sama xam gu jëfé ko ba ci kanam ba xam señ señ señ Mahmoud daane ci ba xam señ tuwa joo ci la daan dox né mu yëkkatiwaat mu yëkkatiwaat cian gu cian gu bes pek joxé ko ne Jibril ali salam di limay wax moko wax ci rus na ko neenal Jibril ali salam bi fi bayiko dina sa borom nee na Ameth Touré mom bi mu koy bi mu ko bind señ a tax te señ ko dama xam lu bu bu sagal na xaraj moom ñaar def ci amil Touré señ Mahmoud daane moo tax sama ndey maa Abdou Samad képp lamp sa sama kër baay loolu daal xam naa ko ci waaw loolu foofu man foofu moo tax ma nag bi mu war bi yàlla defee mu mu mu mu mu mu mu gone àdduna bi ñu ko waxee ku tedd gi moo joxe woon turam am na ñu ne naar bi ñuy wax Mahmoud Fa boon na jàng xasaayit mu tuddee ko am na ñu wax loolu Baye Cheikh Sylla mi laa nee na ma xasida gu ñuy wax li manil mulk li yow ma la doon jàng ku tedd gi ne nañ koy wax Mahmoud ndawal dem ba lii mu wooraak mu ñëw mu ne ko nañ koy wax Mahmoud te buñ ko wax Mahmoud daa dem Mahmoud turu yonte bi moo kuñ këram gi noonu bi nag mooy def fu mu fekk lu baax mu xaj-xaj la fi ngir yàq Mahmoud mooy kuñ rëbb ki mu moom sëñ Mahmoud daa ne la war ne nañ may woo Mahmoud te si yéen sama yenn taali bi di wax sax sëñ max te ku ne xam max la la man moo moo waral sama tëlee wax gi loolu daal daa xam naa ko ci moom loolu daal la doon la nga doon laaj am naa leen loo xam ne dama bëggoon ñu tund wii ñu xam ko mooy am na benn bi suñu as jaxate jóge Tuubaa ñëw day day siyaare son son ummi mbàmp na mu ne ko maa maa sant bi mu demee ñu siyaare ba noppi moom nee na bi suñu as génnee muy dugg mu xoolaat ne gis ne maanaam kiiwu barab bi pavillon bi dafa lënd dafa amee lënd nee na kaala mu duggaat ci bi kaala gi mu yore woon mu dindi ko di fomp lënd yi nee na dégg baat bu jóge ci barab bi ne ko xat urita soolaka yaa Moussa maanaam la man ka xat urita soolaka yaa Moussa maanaam bu doon fekk luñ mën a yéen firikat yi luñ mën a tontu ñu mën a la firi li nga doon li nga doon jox nañ la ko am déet ma ne ko waaw kon nag loolu ma ne kon kon wóor na am na lu suñu duwaa defal ci tund wii ma ma danaa wax naan waa Mbàmpane waa Mbàmpane xaw ma bu lu ñu lay suñu tubaa mu bàyyi leen doom ji ñu ne ko fu ñukk ñoon ne nanga koy seete fee waaw ah. ah, loolu ko wax lool daal xam naa ko ci léegi nag xamu noo koy ràbbale waaye <laughs> loolu daal loolu laa bokk na ci li ma xam ci moom daana toog ba ci yàgg na mu fëgg téye na da maa xamul rek xamu na lu mu jublu yàlla rek a xam hmm. ah, man mii wax ak yow léeg-léeg xanaa dama koy dama koy mose ci li ma wax naa yéele ak jagle la ne naa ci ron na benn bis am ku mu li ñu wax temps yooyu ñoo ne soo ko am def ko sama tur moom yàlla def ma ma bi ci doo waaj a waaj a fatu ma ñëw ne ko am na ku la yu nangam de damaa bëgg xëy bu subaa dafa wes wes la ñoon Tuubaa la am jëli ko mu waaw ñaata la ma wax ko yàlla def ma waroon def tolloon ci waroon def examen ma ñëw ba tolloo ngaabu sama xel dem ne ah sëñ Cheikh Lo ngaabu de dégg naa ko mën a ñaan la ci examen ma wàcc dem fa sàkku ñaan ba ma demee yàlla def tax tawxe mu ubbi ma dugg ñu jaari euh, ma ne ko doomi sëñ mahmoud laa damay war def examen bëgg ko ñaanal ma mu ñaanal ma ma jël sama xaalis bopp 8000 francs jox ko ñëwaat dugg oto dem Touba bi ma dëppee ba ba est mu dem nga ñëw mu ne waaw fekk ko ci mbaar mi mu ne foo jàddoon maa mu ana xaalis ba nga jëloon jël wuti woon ma jox mu wàññi ba mu àgg mu ci 8000 francs delloo ma <laughs> waaw loolu moom loolu ak jagle boobu la waaw tax ma ada mel ne def mel ne am no mos ci ci ci ca mom waaye hmm. nag da ci am noo do do do doo sañ a ndax bo ci day nuru leneen te def mel da waaw waaw loolu laa fa daa jar naa yëpp jërëjëf jërëjëf jërëjëf jazakumullah ah waaw waaw waaw comme loolu nga wax itam euh, maa la koy nett li benn bés sax euh, dafa am benn bés ma tëdd guddi ab nawet la woon comme nii yàlla dogal ma gént gis ko mu ne Moustapha ma ne ko Mbàkke mu ne bu subaa na nga ñëw ba ma jox la loo xam ne bi sëñ Tuubaa ñëw ci géej gi bële kenn joxu ko nit bi bët seetee ma xëy sama benn xarit euh, ànd naa ak moom ñëw fii sax ci yow mi mooy Pape Mbaye ministre bi waaw waaw waaw waaw bi ma xëyee wax ko mu ne ma loolu jërut waaj nañ fa dem ndax dama ko war a siyaare ji bi ñëwee allaaji lañ fekk sa rakk ma ne ko sëñ bi mu ne ma sëñ bi daa fatu fan yi dalaa woo ma ne ko ah wowu ma ni waaye mel na ne daal gént naa ko bi xam naa daal moo tax ma ñëw ko siyaare mu ne ma kon demal toog ba xaar xëy na mu ubbi waaye fan yi ñetti fan am na yoo xam ma dem toog foofu fekk naa fay gan ñu toog mm. tuuti am na benn fenêtre bu nekkoon ci kii bi noonu mm. ma def ko nii seen ma ne Moustapha ma ne ko Mbàkke ma ne ma ñëwal ma ne bëreet ki ma jóg ki ma àndal jóg ma ne ko yaa sob ku la wax ma ne ko ñu ànd ma ne wax kon ñëw leen ñuy ñëw bi ñu ñëwee nuyoog moom toog ma ne ko ah ñun de tey dañoo ñëwoon rek doon la siyaare mm. sama xarit la mu ne mooy ministère bi ma ne ko waaw mu ne dëgg bëgg naa mu defal am mbaar fii mbaaram seng waaw ma ne ko bii gi damaa gént mu ne bu ko wax de bu ko wax de alaaji alaaji mu ne ko mbaak mu ne ko kaay mu ne ko duggal fii am na gaal gu ne foofu ñaari gaal la jox ma genn ga alaaji jël genn gaal ga indil ko bi mu ko indilee jox ko mu ne ko waxuma gàccees laa wax mu dem jël gaal ga indi tegal ko mu ubbi ko am lu mu ci génne ne ma nii ma taal sama ñaar ne ma lii ma lay jox ba sëñ Tuubaa ñibbi si yi géej gi daax lool ki mandaloon yuuxu mbëkk miir ba nëgëni mi ngay ab légat fii waaw nga xam ne ma ko génte woon moom noonu la ko defee waaw loolu moom mën naa ko témoin <laughs> waaw nañ koo témoin ci moom waaw jërëjëf waaw waaw